Mhm. acca jërë ngeen jëf uh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delloowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay. amaat li di kontaante ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp tey ma fas yéene jàkkaarloog beneen kilifa nga xam ne kenn du ko présenté te di kàngam mu koy ñu koy tuddee Cheikh bàyyi macha allah tey nag xanaa namoon ngeen ko ni ma ko waxee saa su nekk fas yéene naa ko indiwaat ñu waxtaan ci xam-xam ni ñu koy defee waaye xew-xew jamono ni ma koy waxee duñ ko fàtte dinañ ci yaat bu baax a baax Cheikh Baye macha allah laata may dugg so biir programme daal bàyyi nga ñëw bokk askan bi. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sayyidul awwalin wal axirin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabi'a bi ihsan mhm. ci kër gi ngay ñëw mhm. muy seen kër di xaalam bi yëpp fépp waaye toog janoog ñun duñu seetaan muy émission bi am solo bi nga xam ne dara taxukaa jug lu dul yaatal xam-xam yaatal mbiru lasraar yaatal mbiru ñaan yaatal mbiru soxla jaamu yàlla yi ngeen dikk fii pour taataan ci seen micro ñu fas yéene ànd ak yéen leen waxta leen ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah tarkalla jërëjëf euh, Cheikh Baye macha allah ñu ngi lay fay bu baax. di lay kontaanee ginnaaw suñu set yooyu te ànd ak daal ñu ngi ciy kontaan bu baax. acca comme ni ma ko waxee saa su nekk ku bëgg a jëriñu rek euh, na nga bàyyi xel lii di vidéo ba jeex tàkk tey nag fas yéene naa ñu waxtaan ci xam-xam ni ma koy defee saa su nekk ci ñaari pàcc du ma waxee ñaari pàcc damay jëm ñu waxtaan ci ñaan. Hmm. waaye suñ ci jógee dinañ waxtaan ci lii di pàcc diggante ñaari ponk yooyu bëgg naa ñu indi ci leeral bu baax. Hmm. ngir ñi nga xam ne ñu ngi waxtaan dinañ ci am luñ ci jëlee comme njëriñ. bisimilah xew-xewu jamono mu di actualité euh, li mu gis ci élection euh, législative yi mu di élection député yi di mois de juillet. Euh, mm. dinaa ko bàyyi mu wax ci ndax am na lu mu ci gis yaatal ci bu baax a baax bisimilah tey dama bëggoon ñu tàmbale ci listixaar listixaar bu wër laa bëgg ñu waxtaanee ana nan ngay defee listixaar. waaw balaa ñoo tàmbalee si li nga xam ne mooy point yooyu nga xam ne wax nga ko jëm si wàllum ñaan ak listixaar a wax jëmee ko si ki nga xam ne mooy Ndoye Bane dama gis kat dafa am lu bari lu muy attaqué sëriñ si di leen wax te te suy wax maanaam du joxe li nga xam ne mooy comme ni ko ni ku màndu dëgg di defee maanaam xam nga li naan exception dafa am ma gis lu bari suy wax jëmee si sëriñ si daf leen di yàq di wax ne sëriñ si ay trian lañ sëriñ si dañuy lekk xaalis si nit ñi sëriñ si nangam ak ki nangam ba keroog bi nga xam ne quartier général bii passé seetaan naa ko bi nga xam ne si la invité ministre euh, de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr bi ñu ko invité mu wax ne war ngeen a xool noo leen def sëriñ si pour xool na la leen di ñu nekk si internet bi di def lii di def nangam. loolu daal da laa naqari. léegi da ma it xam nga nit ki. xam mm-hmm. secteur boo dem. Mm-hmm. am na ñu si sérieux am ñu sérieux wut. Ah, politique bii ñii rek moom mu nekk am na ñoo xam ne dañu si nekk pour defar Sénégal. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañoo ñëw si politique ngir lekk xaalis ak préparer li nga xam ne mooy wàllum santé bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moom la jiite. am na ñoo xam ne ñu sax maanaam lu ñuy def maanaam apte wuñ si bu baax di ñu njaaj di lekk xaalis nit li nga xam ne moom mooy wàllum sëriñ jamono jii ñaata taalibe ñooy topp sëriñ am na sëriñ yoo xam ne dañoo ñëw mubboo seen bopp ne ay sëriñ lañ di exploiter xale yi di leen lekk seen addiya te duñ leen wax xaala Allah duñ leen wax xaala rasul waaye am na ay yoo xam ne ñoom dañoo ñëw tegu siraatal mustaqima mm-hmm. di omat jaamu yàlla yi di leen yóbboo wax leen xaa anta wa rabbuka kon li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy métier sëriñ maanaam mbir la boo xam ne nit ki daf koy jàng su ko jàngee ba xam ko mu ñëw commencé di si jëriñ jaamu yàlla yi léegi euh, ministre des sports ministre de la santé boobu muy wax. Mhm. xamul ne lu ëpp si ñi nga xam ne mooy fajkat yi dañuy ñëw sëriñ di ñaanlu il faut ñu xam ne sëriñ si soo xoolee lu ëpp lu ñuy faj hémorroïde la ndoxu siti li nga xam ne mooy néew kàttan mais am na ay mbir yoo xam ne kenn rek moo ko mën a def li nga xam ne mooy médecin man fii ñaari nit ñoo fiy ñëw. Mhm. suñ fi ñëwee. suñ ma waxee benn taw dama naa dama leen si hôpital suñ demee hôpital ñu xool ba nga xam ne loolu hôpital mbiru hôpital la may leen dem leen si hôpital ñu faj ko su dee hôpital mënuñ kaa faj ñu ñëw si ñun ñu fajal leen ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ay médecin di ñëw si ñun nekkul ay affaire santé lañuy moo leen tax a ñëw si ñun maanaam ñoom seen xaajo moo leen fi tax a ñëw dañoo am ay jafe-jafe seen wàllu diggante ak seen soxna mm-hmm. wala bërëb bu ñu liggéeyee lañ bëgg yëkkatiku wala ñu bëgg li nga xam ne moom mooy ubbeekaay ñu ñëw ñaanal leen si mm-hmm. léegi nag fii rek laay gis Sénégal ku jàng école français dem université am bac dem si bureau yi di liggéey yore kat-kat yore ay yore kër nekk si ñu la wax dara mais dafa mel léegi nangu ñu nongo daara boo xam ne jàng na ba nga xam ne alxuraan nekk na si dënnam gi nga xam ne kooku magasin la si magasin yàlla yi ñu ne kooku moom warul yore dara dafa war a nekk nit koo xam ne koo gis ak yërëm dafa mel loolu moo leen métti ba tax ñuy wax ni nañ bàyyi sëriñ si man waxuma ne sëriñ si ñëpp ñuy woote sëriñ si ñëpp si li ñu ne dëgg la am na ñoo xam ne moom ñu njaaj moo leen tax a dugg si mbir mi. du ñoo ñoo tax sa waay di wax. waaye kon nit nit nag ñooñu lay yóbbu lay seppi di ci dut baaraam. waaye nit sooy wax da naan am na si sëriñ si ñoo xam ne maanaam lekk xaalis nit ñi moo leen tax a jug. kon dafa généraliser dafa généraliser mbir mi. xam ku ñëw ne politiciens yëpp ay trian ay lekkar xaalis lañ am na ay politiciens yoo xam ne ñu sérieux ñu ngi nekk di liggéeyal seen gox di teg xale yi si condition yu baax ñuy am liggéey di daan seen doole dimbale seen waajur kon da nga naan am na si sëriñ si ñoo xam ne nangam ak i nangam sëriñ si nag moom su leen leen di di si dimbale yàlla nga xam ne mi ngi nekk Sen TV seetaan naa ko si émission tamit émission Sen TV boobu noonu ñuy def par ngoon gi à partir de 17 ko wax moom tam mu dalaat si sëriñ si ne képp koo xam ne bëgg nga sa soxla faju bul dem si sëriñ tàllal sa loxo nga ñaan yàlla yàlla nangul la kenn wedduwul nit ki da ngaa war a taxaw ñaan yàlla yàlla nangul la mais ñaan dafa am ñu ko mën tey soo feebaree da dem hôpital n'est-ce pas. Mhm. docteur bindal la garab. Ah. defal la consultation. Mhm. pourquoi fajoo sa bopp. da ngaa dem si médecin te du mu faj la sëriñ bi tamit noonu la mel moom muy wax Mohamed moom du n'est-ce dafa nekk si tarixa new dafay def direct rek am jokk si yonent sallallahu alayhi wa mu yeggalu ko si jëmm yàlla mais dafa dem jokk si benn tarixa jàpp wér kon mbiri ñaan yàlla tamit noonu la mbir mi soo ko bëggee da ngay xool ki nga xam ne moo la gën a xam mbir mi mu dimbale la si dama koy joxe faral di wax chaque jour da ngay gis ni koo xam ne jàng na alxuraan ba wëtt ko mhm. min baqara ba naasi mu mën kaa tari nit koo xam ne mokkul dara si alxuraan dafay jukki lenn si aaya alxuraan takk ko nga dóor ko fetal du dugg ku mokkal alxuraan bi mën na téye kaam bi nga dóor ko fetal mu dugg kon lan mooy seen différence bi kay jàng na ko mokkal ko mais xamul ko hmm. mais kii nag dafa dem gëstu ji ko xam ko ñëw toog hmm. te moom Mohamed moom yaakaar naa su demee bay attaqué sëriñ si xam la la war a attaqué seen TV googu muy liggéeyee plateau bu muy toog ñaata jigéen ñi koy jigéen yooyu yëpp ñu ngi melokaani melokaan boo xam ne sariya nangur ko ñii seen bopp yaa ngi feeñ ñii seen awra yi nga xam ne alxuraan dafa wax ne ñooñu waruñoo génne seen awra yi su demee si alxuraan yàlla mi ngi wax yonent sallallahu wa sallam ko yaay woon ne bi kulli azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna bi waxal say soxna ak say jigéenu jullit yi nañ muur seen awra buñ ko feeñal te ba bërëb bu nekk di liggéey ñaata jigéen a nekk di a balaa moo wax sëriñ su ñu nee na wax ñooñu nga xam ne moom oustaz la hmm. oustaz rôle am mooy mu wax li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ak lu ñuy hmm. digle yaa ngi dégg kon nekk rôle nekk si loolu te bàyyi li nga xam ne moom lay nekk di critiquer sëriñ si di wax ne sëriñ si dañuy def nii sëriñ si def nii loolu baax ba loolu loolu baaxu si nit hmm. waaw loolu laa amoon lu ma si wax bismillah ñu jëm si wàllum listixaar bi listixaar si arab ah. mooy seet mooy xool li nga xam ne daf laa lënt ah. wala di dugg si benn mbir di xool mbir mi ndax mbir mi may dugg baax na wala baaxut soxna si may takk ah, man ak moom suñu rawaxani ànd na wala àndut kër gi may jënd kër gi baax na si man wala baaxut si man tukki bii may tukki ndax su may demee dinaa fa am wërsëg wala su ma demee dinaa fa yegg wala du ma fa yegg loolu mooy listixaara listixaara nag li ñu bëri dañ ko jël tënk am ñoo xam ne seet la ñuy def seet nag da ngay ñëw toog jàkkaarloo nit ki yoo xam ne man damay wax ne seet mooy lu réer moom ngay seet lu la réer moom ngay nekk di seet man moom yàlla dimbale na ma ba su ma janoog nit rek mhm. lu nekk si yow mën naa la ko wax saa ma seetal la rek man xool ma nii ñu jàkkaarloo rek lépp lu nekk si yow muy tawat muy feebar muy jafe-jafe gàllankoor ak bëgg-bëgg nga am yëpp man ma defal la ko loolu yàlla may na ma nga xam ne léeg-léeg nit dikk ñëw mhm. daf may nekk si moom yëpp jaru sax may wala may tërëral ma bi dikk kii mhm. ki nit ki su toogee temps en temps dafa war xool ay mbiram comme ni nga xam ne nit ki dafay toog léegi-léegi dem hôpital ñu defal ko li nga xam ne mooy bilan xool yaramam bi ndax suukar si normal na xorom si ndax normal na tension bi ndax normal na su ko defee su dee nit ki su dee mi ngi toppatoo yaram bi di ko def noonu man na dund cent ans wala quatre-vingts ans yenn feebar du nekk si moom mm-hmm. mbiri wàllum sa ñaan nag noonu la mel nit ki da nga war di faral di xool say mbir di xool na ku mën seet mu xoolal la hmm. su ko xoolalee nag dina la tegal ay mbir na la mbir mi soo si tegoo ko di nga a yegg fii nii loolu mooy lisxaar lisxaar nag moom dañ def fanaandoo dañ koy def dañ def li nga xam ne ramlu la wàccee ramlu bi nga ñëw ñu xoolal la ko hmm. te lépp lu ñu si wax nit ki jàppal takkal téere nga xam ne ni la wax dara du si dañ acca kon mu ko hmm. euh, jërëjëf euh, Cheikh Baye macha allah am na hmm. solo euh, damay dox ba léegi jàll ci mbiram fatxu laa ñëw su ma ko waxee seen xel dina jën ci ubbeeku ndax hmm. jamono jiñ toll moo ko laaj sa ubbeeku rek sa mbir yu bëri day xaw a tàgga témbe ñu ñëw ci waaw fatxu moom képp koo xam ne yaa ngi nekk si àdduna bi war nga ko mën a dox pour am ko parce que nit ki mënu dund si àdduna te amul lu mu lekk dafa am benn kilifa bu ne comme ponk lislaam juróom la. Hmm. mais su dee am na benn bu koy juróomeelal mooy liggéey. parce que liggéey si ngay mën a amee xaalis am kàttan dem aj màgg liggéey si ngay mën a amee xaalis mën a lekk ba mën a taxaw mën a julli. Hmm. liggéey si ngay mën a amee xaalis ba weeru koor jotee soo wooree mën a am loo ndogoo. Hmm. kon liggéey yooyu noonu nit ñi nekk kenn ku nekk dafa am si looy liggéey. yéen si wàllam journalisme kii a ngi liggéey si politique kii a ngi liggéey si football kii a liggéey si mbir. mu nekk mbir moo xam ne lu nekk da nga fay fekk centaine de personnes yu nekk si di xëccoo si benn branche di fa liggéeyee mm-hmm. war nga ut li nga xam ne mooy fatu mu yàlla ubbi sa wàllum wërsëg wàllum wërsëg nag da koy liggéeyee si li nga xam ne mooy alxuraan da nga koy liggéeyee si wàllum sunguf dafa am nit ñoo xam ne nekkul da ngay ñëw rek nga jox leen sunguf am na nit koo xam ne su dikkee mm-hmm. kooku sunguf moom mooy li nga mooy taal mbiram ki nga xam ne sunguf moom mooy taal soo ko joxee alxuraan mm-hmm. mën naa nekk loo xam ne nekkul lu koy jëriñ cent pour cent koo nga xam ne alxuraan rek nga ko war a mën a jox waroo ko jox sunguf kooku soo ko joxee li nga xam ne mooy sunguf mën nga ko indil jafe-jafe hmm. damay wax ne ak sunguf nag benn la hmm. alxuraan waxu yàlla la sunguf jëfi yàlla la parce que sunguf lu jugee ko si garab la wala si xas wala si reen hmm. lépp loo si mën a defar xamal ne li waxu yàlla li jëf yàlla dañ siy liggéey si yoon bi yu bëree bëri am na benn fàttu boo xam ne dañ koy def soo demee si ay si am na ay aay yoo xam ne ñu ngi commencé ay am am am rawatina soo demee yaakaar si suratul wan nañ mi wala wa tuuri am na ay ay arxaan yu fa tudd ñuy commencé am ay ay am abramu amran fay naam mujrimuna am yax buna ana la nasmo ba leew rasuna la dem yax si buna am lil insaan ma tamana am am noonu mhm. yooyu si la ñuy jël si benn xaatim boo xam ne dafay am nombre de xaatim bi képp koo xam ne am am rek moo tax a jug mhm. suñ la liggéeyee les secret boobu noonu si am am yooyu noonu du doon da ngay ut am-am loo mbir moo mënta nekk soo si suuba yàlla dina la dimbale sa wërsëg dina yaatu dina ubbeeku kon mu ah. yéen ñi bëgg seeni i mbir ubbeeku ba hmm. lépp lu ngeen teg wala lu ngeen dëg ma rek ngeen gis ci lii di tawfeex ah. fexe leen ngeen euh, jokkook euh, Cheikh Baye macha allah aja dama ñëw ci euh, mbiram musluwaay hmm. ndax su ma ko waxee sama xel dina jëm ci kaaraange di protection hmm. rawatina jam diñ toll nii dafa tërënde ku ko rek foo yaakaar demal ko balaa balaa may wax sax nit ki balaa ngay ut fatuxu mhm. nga war a njëkk ut. exemple bu ma lay jox nekk. Mhm. xool agression bi nu mu bëree. bëri na ñaata nit lañ fiy rey. ñaata nit la ñuy faat seen bakkan ci lu yomb. bëri na da ngay dem liggéey pour daan sa doole pour dimbale say waajur. wala pour mhm. dimbale say njaboot ñu ñëw faat la. kon nit ki suy dund war na ut kaaraange kaaraange moom mooy fondement wu nit. tabax soo koy def da ngay def fondement. Ah. su ko defee soo ñëwee teg deuxième troisième quatrième. étage ba mën di continuer. kon nit ki su dee am ubbeekaay man nga am fatxu léegi wërsëg dikkal la mbooloo dikkal la amoo kaaraange ñu gor sa tànk nga teg ñaat nit nga gis ñoo xam ne amoon nañu wërsëg lool da ngay jéggi saa rek gis ñu commencé di wàcc di wàcc kenn déggatul leen su doon dañoo am tur nga jéggi saa ñu fay su doon dañoo am alal nga jéggi saa yërëm leen yéen bëgg leen a jox sarax kon kaaraange dafa baax si nit ñu ngi siy liggéey ay yoon yoo xam ne ay ndomba la ndomb yoo xam ne képp koo xam ne ëw nga ko nga tax ko doo accident duñ la jam paaga duñ la gor jaase li sax du la jam kon ni koo xam ne yaa ngi dund nekk ci société bi rawatina nga nekk Sénégal wala nga nekk koo xam ne yaa ngi bitim réew sax da nga xam ne nekk en mhm. ay jàmbur nit ki a nga war a mhm. bi nag nekkul mooy nga rey nit wala nga yéene nit lu bon sadit bi mooy nga def yenn protection yoo xam ne am na yoo xam ne soo ko laalee jëfandikoo ko ku la song dafay yàqu blende sa bopp daal blende sa bopp mhm. képp ku lay jéem a dóor daan defar ay lamp tàgge parce que danga nga doon dox ci yenn lëndëm yi guddi yi dox fenn nga jékki saa rek hmm. nit ñëw dóor la nga daanu mu jël li nga sa alal yóbbu ko hmm. kon nit ki da nga war a sadi di am ay itu bagage yi tax xam ne da koy am soo ko amee nit koo xam ne daf lay jéem a fexel parce que da nga xam ne léegi fi mu ne nii am na ñoo xam ne duñ jëm paake duñ dóor jaase ñu jëm puso fu ñu toog la ñuy toog téye seen kurus yéen benn quelques per la ñuy jël liggéey lu ñuy liggéey wàccee la léegi wala ñu yàq sa mbir <laughs> kon yow su dee yàlla dimbale na la nga nekk nit koo xam ne normal nga dimbalal sa bopp si loolu noonu su dee nag ñi nga xam ne ay waajur lañ waajur yi tamit nañ fexe utal kaaraange seen njaboot yi parce que yéen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kullukum raay wa kullukum mas'ulun an raayati kenn ku nekk sàmm nga te sàmm dina la laaj li nga doon sàmm kon soo amee njaboot waroon leen jël rek bàyyi leen topp liggéey bi di dang-dangi rek bàyyi sa njaboot yi war ngeen a utal kaaraange kaaraange protection boo xam ne su dee wàllu jigéen la ji góor du ko yàq du ko def lu bon su dee la tamit góor goo kenn du ko yàq du ko def lu bon su ko defee ñu mën a dund tranquillité dem ba toll koo xam ne ñoo ñoo mën a toppatoo seen bopp di si wàllum wërsëg ak li xam ne moom mooy wàllu ubbeekaay acca ma ñëw ci ni ko olof Njaay di waxee li nga xam ne euh, su la xasee dugg moom wala sur le rayut mën na laa semal wala mu toppale sa biir bàmmeel cat mooy lan cat de yonent bi sallallahu alayhi wa na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne al aynu xaqun wa lisaanu xaqun <laughs> maanaam bët dëgg la làmmiñ tam dëgg la waxaan na si xadis sallallahu alayhi wa sallam ne aksar man yamuti aksar man yamuti min ummati ba'da xadaay laay wa xadrihi maanaam alxayu bëri na ni koo xam ne dee na ginnaaw dogaloo ak yàlla maanaam bët la maanaam bët li naan su la rayu la mën na la sàmbal maanaam bët baaxut dafay yàq nit dafay gàllankoor nit ki dafay indi jafe-jafe léegi bëri na nit koo xam ne mu ngi tëdd hôpital feebar fa feebar boo xam ne kenn xamul lan la ñu foog ne dañ ko liggéey wala ñu ko def fekk bët la te jamono ji gis nga léegi lu xew nit ki lépp lu mu def rek mm-hmm. génne na ko publier ko TikTok yaa ngi fi nit ñi amatuñ kersa Facebook yaa ngi fi WhatsApp yaa ngi fi Instagram yaa ngi fi lépp lu waay def da ngay teg añ sax balaa nga lekk sax nga TikTok ko wala nga statut ko nit ñëpp xam tey yow li mm-hmm. ngay lekk wala sa sambra kusi sax nga nga koy film di ko wan nit ñi nit ñi xam fi ngay tëdd fan la sa jëkkër fu muy tëdd ak su dee góor la fan ngay kon bët baaxut mm-hmm. nag moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla protéger woon na ko si benn aaya mi wax ba in yakaadu lazina kafaru la yasluqunaka bi absaarin aaya boobu dañ siy liggéey si wàllam cat maanaam liggéey bu jéggi dayoo boo xam ne képp koo xam ne yàlla dimbale na la nga jot si sunguf suuf noonu bi ànd ak aaya boobu noonu am yoon bi nga ko soo ko jëfandikoo di nga dund nun la neexee te cat du la indil benn jafe-jafe. kon léegi nit nit ñi nañ fexe di moytu di xool fi ñu teg seen tànk rawatina cat bi nga xam ne mi ngi sànq ñu bëree bëri bëri feebar yu bëri yi ngay dégg yu bëri bëri ñaata nit ngay gis ñuy dem hôpital ñëw na dañuy faju bu ñëwee médecin bi day xool ba pare ne gisu si ñoom dara mhm. comme lu ma wax si njëlbeen bi rek bëri na ñoo xam ne ñu ngi jógee ko hôpital ñëw si ñun mhm. di sàkku ndimbal parce que médecin mënuñ si ñoom dara su ñëwee yow sax ngay xool rek xam ne kii cate ko jàpp wala nga xool nga xam ne rab a ko jàpp wala nga xool nga xam ne dëmm ko jàpp rab nag médecin mënu kaa gis cat bët médecin mënu kaa gis nit dëmm médecin mënu kaa gis nit moo ko mën a gis mhm. kon loolu nag képp koo xam ne dal na la dafa am nag ay signes yu koy waral képp koo xam ne loo am mu dem wala da ngay gañe xaalis bu bari mais da ngay jékki say affaire bi di seey mhm. wala yaakaar boo am mu tas wala jigéen boo xam ne léegi-léegi da lay ngoro nga dem ba sa ngoro nga yàqu loolu yëpp da ngay wane signe de cat la cat nag dafa xaw a niroo rab waaye te duñ benn Hmm. waaye nag képp koo xam ne dal na la rek xamal ne lu muy yàq maanaam rab lu muy def nit di ko yàqale cet noonu lay def nit ki ñaari noonu dañoo nekk loo xam ne lu jege la hmm. benn bu nekk ñu masu tuuti soo gisee ku dëmm jàpp soo gisee di nga ko xàmmee waaye man su ma jaakaaru nit ki ner su xoolee su ma xamee dëmm da ngaa jàpp da nga xam dëmm ko jàpp dafa am si ñu leen war rek xam ne la kii dëmm ko jàpp wala rab ko jàpp cey subhanallah mm. damay jàll ci yeneen i ponk mu bokk ci feebar yi comme ni ma mm. koy waxee mu di impuissance sexuelle mm-hmm. eh, hémorroïde ak euh, lii di ndoxum siti mu ñëw mm. ci néew kàttan ndax am nga ci saafara néew kàttan de xam nga léegi fu mu ne nii phénomène la waaw boo jël maanaam soo jëlee téeméeri personne téeméeri nit mm-hmm. quatre-vingt-dix pour cent yëpp dañ ko am jafe-jafe maanaam lu koy indi nag dafa war dafa bëri il faut ñu wax cause yu koy waral cause yu koy waral nag bokk na ci foogu bëri maanaam da ngay gis ni koo xam ne bu muy am 15 ans si la tàmbale di fo. Mm-hmm. bu muy dem ba am 30 ans bëgg a takk soxna te fekk saditam bi dem na ba raay xam nga nan raay maanaam say dem na ba reppi mm-hmm. kooku dafay am problème li nga xam ne mooy impuissance sexuelle ki nga xam ne nag rab daf kaa jàpp tamit dafa am li nga xam ne mooy impuissance sexuelle mm-hmm. lekk yi nga xam ne moom la ñuy lekk jamono ji lekk yu bon yi lekk yu nii nii yéex a yéex a yéex a yéex a reer yaa ngi dégg pat bu bëri bi jumbo yi ñu jël si lekk yi diwlin gu baaxul gi yaa ngi dégg ñàkk naan ndox mu bëri ñàkk lekk fruit ñàkk lekk léjum yooyu noonu yëpp dafay dem ba fay indi nit ki organe mi nu mu war a tranquillité nu mu war a dundee da si am jafe-jafe wala néew kàttan néew kàttan moom dafa nekk loo xam ne képp koo xam ne dal na la waaye nag soo ñëwee dañuy xool ba xam nax parce que nit ki su dee dafa am ndox siti bu ko jàpp hmm. wala émeraude jàpp ko su ñëwee man suy sëy mën na gaaw a daanu léegi nag léegi-léegi nga gis ñi koo xam ne day ñëw si sëriñ bi ne ko man dama am néew kàttan su ko defee mu yëkkati garab ndiw kaa jox la nga dem di naan di sëy dara du dox te fekk hémorroïde bi moom moo la jàpp moo soo gisee ñett po laa ko yu bokk bii nii moo may li nga xam ne mooy dox si wàllam impuissance bii mooy dox si wàllam kàttan soo xoolee sunguf si sax hmm, bokkut sax ak yeneen i bokkut gis nga waaw bii nag moom nit mën na ko naan comme ni muy naanee meew nii parce que meew sax lay ànd ak amul benn effet secondaire sunguf la dun naan xam nga sunguf dañ ko defaree ak li nga xam ne mooy xob ak wala xas dañ ko dëbb ba moo ko loolu sunguf soo soo ko naanee dafay dajee sa biir yaram bi mhm. du seey mais lii dafa mel ni comme genre sunguf rek nga jël sa dugub dem wal ko mhm. nga ñëw def ko yaa ngi dégg wala nga wal ko mhm. nga ñëw lekk wala nga dem jël mboq xam nga yooyu noonu yëpp ay ferñeent la. Mhm. ay yi nga xam ne yu baax la. Mhm, léegi nag gis nga euh, kii bii nii garab émeri bi garabu ngóore bii nii. Mhm. képp koo xam ne jël nga ko nga jëfandikoo ko semaine te gisoo sa jëlaatal pot bi nga départ ko nga indiwaat nga delloo ma ko ma delloo la sa xaalis. xanaa moo leer. garab bii nii. képp ku ko jëfandikoo une semaine gisoo si résultat. si lu ñu la wax jëlal pot bi nga départ ko nga waaxu ba yegg si fii nii. nga jox ma pot bi ma delloo la sa xaalis. ku ko jëfandikoo di nga xam ne laal nga mbir. ku ko jëfandikoo di nga yëg. ayca kon wàllum wàllum hémorroïde bi comme ni nga laajee. Uh-huh. garab yi ngeen di gis li ndox siti la. Uh-huh. garab bii ni mooy hémorroïde bi. Ah. léegi nag hémorroïde bi ku ko ku si bëgg faju dëgg. Uh-huh. pot bii daf siy jël quatre. quatre bi mooy traitement normal. bii soo ko jëlee naan ko ba mu jeex. nga jëlee benn naan ba mu jeex ba mu nekk quatre. moom mooy normal léegi nag. da ngay gis ñu ko xam ne hémorroïde daf koy dal ay at yu bëri wala ay weer yu bëri mu bëgg ko naan benn semaine mu jeex léegi-léeg nga gis sëñ bu ne la man hémorroïde dama koy faj ci une semaine wala trois jours loolu moom ko leen dégg mu leen ngay wax dafa leen di nax bëgg lekk seen xaalis hémorroïde feebar la boo xam ne dafay nekk ci yaram bi yaram bi soo bëggee mu génnaat ci yow tamit hmm. maanaam da jël traitement ba traitement bi pare il faut nga jël ci quatre top hmm. moom macha allah bii nii tamit ndoxu siti la képp koo xam ndoxu siti daf la jàpp mm-hmm. say karaw di dagg wala ngay am ay euh, biir bu tàng wala ngay am ay ballonnement wala ngay seere ba doo sooy dem toilette léeg-léeg nga gis ñi koo xam day toog deux jours du dem toilette pour pour dem pour nga gis nit koo xam ne day toog biir bi di génnee ngelaw rek wala muy yuuxu rek mm-hmm. yooyu yëpp yu ngay waral hémorroïde la ak ndoxu siti bii ku ko soxla su dee hémorroïde kese moo la dal da ngay jël bii su dee ndoxu siti kese moo la dal da ngay jël bii nii su dee nit ba pare am li nga xam ne mooy impuissance su ñëwee dama kay proposé ñaar yëpp. Ah. dafay jël bi suy tëdd mu naan ko bii saa lekkee ba pare mu naan ko. su ko defee li nga xam ne mooy hémorroïde bi dafay wàññeeku dose bi di wàññeeku su ko defee garab gii mën a def effet. garab bii nag moom pour mu def effet dëgg-dëgg te fekk yaa nga am émorite il faut nga koy boolenteeg bii sinon mu du la def cent pour cent aja kon mu ngoog euh, Cheikh Baye macha allah ñëw na njàmbat euh, jeex na ñëw na faj seen aajo euh, gis ngeen po yi po bu nekk la muy faj li ci ngóora lay dox wala leneen li moom ci siti lay dox lee ci émorite aja dama ñëw ci téere poche bu doy waar bi nga xam ne yaa ngi koy jëflante gaaye ñu ñëw ci téere poche moom xanaa ñu waxaat si rek ñëw ci njariñ li mais ku nekk yàgg nga ko gis ma koy liggéey ku nekk maa ngi koy envoyé bii nag defaraguñ ko ndax dañ ko war a ëw te ku ko war a ëw nekkul n'importe qui moo ko war a ëw téere bi ku koy ëw dafa war a jublu penku dafa war a jàpp te moom kenn moo war a fi wéet mu ëw ko téere bi lu mënta fànq amut téere bi ku ko jël def ko sa poos accident téere bi ku ko jël def ko si kër sax laa wax nga bañ ko def sa poos def ko si kër kër go du lakk hmm. téere bi ku ko jël ànd ak moom nit du la jàmpaaka mu dugg nit du la agressé maanaam làmmiñ du la dugg cet du la dugg lépp loo xam ne luy gàllankoor la soo ko jëlee def ko sa biir yaram bi mhm. dara du la am mën nañ koo ëw defal ko bu mu takk ko waaw mën nañ ko mhm. ah. am na ñoo xam ne soo leen joxee tiir a baat wala mhm. tiir a loxo duñ ko mën a takk mais lii xam nga lii dafa simple dañ ko jël defaral la ko ba mu nice su ko defee ñu xool ki nga xam ne moom spécial dafay jar nga jël ko yóbbu ko si benn kër wala si benn néeg wala nga invité ko sa kër nga dugal ko si benn néeg mu jàpp ba pare farankulaay jublu penku ëw ko. képp ku ko xam ne ngaa bëgg na da ngay sur commande lay nekk. soo woowee bëgg ko dañuy xam sa tur xam sa tur su ko ñu liggéeyal la ko jox la ko. Ah, képp koo xam ne am nga ko dépense dina la yomb. lépp luy gàllankoor doomu aadama si wàll àdduna du la dal. acca ah, kon ko mm. gars yi dépense leen sonal de nee na mm. dépense dina la yomb fexe leen ngeen am ko. Mm. Euh, ndax euh, li mu dëxëñoo daal ci njëriñ bari na. acca ah, dama ñëw ci jaara yi donte bari nañ. Euh, sëriñ bu ma dalal dina ci waxtaan sa jaaro ci lan la ñuy dox. waaw jaaro xam nga cosaan la jaaro dafa nekk mbir boo xam ne su li muy dox bëri na. Mhm. jaaro jaaro yu ma yor na dafa yor ñaar am ñaari jaaro yu façon yu bokkut. dafa am jaaro bi ñuy takk si loxo ndeyjoor am jaaro bi ñuy takk si loxo càmm. bu nekk la muy dox nekk lu muy jëriñ. jaaro bi ñuy takk si loxo ndeyjoor mooy jaaro foqet mooy jaaro boobu jaaro si wàllu ubbeeku si lay dox mooy jaaro bii nii bii si wàllu ndey si ndeyjoor lañ koy takk maanaam képp koo xam ne da xëy di uti maanaam xaalis di dugg sa biir loxo mu yomb la day koy jël nga commandé ko ñu defal la nga di ko takk soo koy takk dinga nga am bayra soo da ngay liggéey si benn bërëb benn société bëgg nit ñëpp dégg la taxal jaaru bi nga nekk fa seen seen biir dinañ la bëgg te di nga am dara soo da ngay ut benn mbir sax mu jafe mhm. ngay jëm si ji soo ko taxee ki ngay jëm noonu soo ko joxee loxo lépp loo ko laaj dina la ko jox ndax jaaru dafa ànd naa la noob noob waxuma noot nit waa kay dañ koy liggéey si wàllam sax du nopp góor ak jigéen léeg-léeg nga gis góor woo xam dafay topp jigéen bëgg ko tax nit ñi bañ ku nekk bis bu ko taxee ba dugg si biir kër ga joxe loxo foofu noonu suy génnee nit ñi dañ ko topp dañ ko bëgg jaaru bi dafa nekk jaaru boo xam ne soo ko taxee nekk si benn bërëb da nga fay nekk sax buur soo xoolee yonent yàlla Suleymaan xam nga yàlla joxoon na ko benn jaaru <laughs> jaaru boobu noonu si la ilifee woon ak nit ñëpp dem ba am ay ay jinne yu koy liggéeyal wa mina shayaatiin man yaqusuna hmm. hmm. am ay seytaane maanaam seytaane tur la si turu jinne yi parce que jinne moom mooy aslu bi mais comme hmm. ni mel nga ne nit rek doomu aadama dafa am séeréer am pël am joolaa am nangam ak nangam jinne nag noonu la amee seytaane am afaarit am ay nangam ak nangam yonent yàlla Suleymaan noonu la ilifé woon jinne yëpp bés jot mu dugg si biir toilette bugg bugg sangu tekki jaaro bi. teg ko si kaw taabul bi. bu nga tegee si kaw taabul bi benn jinne soppaliku xam nga jinne yàlla daf leen may ñu mën a tasrufaat automatiquement mën nañoo jël sa jëmm léegi ñëw feeñaloo fii wala ñu jël beneen jëmm bu mu tasrufaatee jëmm yonentu yàlla Suleymaan si soxna ko jox ma jaaro bu ko joxee jaaro mu takk ko bu mu ko takkee yàlla def xam bu nekkoon si yonentu yàlla Suleymaan yëpp ñëw nekk si moom muy ëlbatiku nag di ilif ñi nga xam ne moom mooy jinne yi ak ñeneen yi yonentu yàlla Suleymaan nag xamatul dara oh. mu génnee ko pale ba mu nekk fu mu dem ba ñakk bay dem bay ut ay jën si ñu nga xam ne dañuy nekk foofu di napp yàlla dimbale ko benn jën bi nga xam ne mayoon nañ ko bu mu ko rayee pour lekk jën boobu noonu fekk jën boobu dafa amoon problème parce que jinne boobu noonu sàccoon kii bi dafa dafa amoon dafa da doon xuloo beneen jaaro bu duggee bi wan ko yàlla mm-hmm. moom la lekk jën bi si la gis ko yàlla delloo war ko xam-xam delluwaat ko alal bi mhm. kon jaaro bi képp koo xam ne da ngay dund bugg di am alal bugg di am am am am yomb la da koy jël nga takk ko soo ko takkee lépp loo xam ne yaa ngi koy ut mhm. yàlla dina dimbale sur commande lay nekk nekkul nekk ay tëgg yoo xam ne dañuy defar jaar exposé ko fii ni di ko jaay mhm. da ngay soxla woo ko ñu liggéeyal la ko si xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy defaree xam-xamu jaaro ñu defaral la ko bii nii bu noir bi nga xam ne moom may am per bu ñuul bi moom may nekk si loxo càmmoñ bi képp koo ne da ngay ragal rab wala jinne wala nit ku bon wala nitu guddi wala jafe-jafe wala gàllankoor yooyu noonu nga xam ne mbir wàllam luy gàllankoor nit lépp utal jaaro bi nga xam ne si càmmoñ lañ koy def nga takk ko si càmmoñ soo ko defee bu soobee yàlla di nga dund di am tranquillité di nga am wërsëg di nga am bayra tarkal kon acca gars yi tekki leen seen jaaro yu bari yooyu ngeen takk seen loxo yi to fexe jël ci jaaro Cheikh Baye macha allah. xam ne tawfiix moo ci nekk te beneen bu ma si yokk mooy xam nga jaaro lu ko tax a jug. Mhm. su dee jigéen la pour rafetal la mais góor takk jaaro nii kese wañ kese kese nii mu lay diisa rek wax dëgg yàlla góor waru kaa def takk jaaro nii rek weñ nii muy diisa sa loxo ku dem bay takk jaaro na fekk jaaro bi ngay takk dafa am lu nga takk ko mhm. nga takk ko mu jëriñ la lu loo mën a am na solo mm. acca jërëjëf dañuy jàll ci beneen ponk laata ñu ñëw ci xew-xew jamono di actualité mu di papier su ma ko waxee mu di mbiram kayit nga xam ne saa su nekk ñu ngi ci dugg ak génn mm. te suñu mbokki moo di moo di mënuñ leen a fàtte ñu ñëw Modou Modou yi samay waay la chaque jour su may def émission dinaa koy wax. damay wax ne jugee koo Sénégal. dem bitim réew di tukki. dara gënu kaa miit. que lu waay gars yi di wax ne tabax sa kër. Hmm. R plus 3 di fay courant ba. di fay ndox ma di joxe dépense. te te doo si dara mi doo gënu kaa miit. <laughs> kon képp koo xam ne jugee nga fii dem bitim réew wax dëgg yàlla jom moo la tax a dem. Hmm. jom bëri na nit ñoo xam ne ñu ngi fii bëgg futtandiku dem kaaw liggéey ji. yàlla xam na ne kenn ku nekk si ñoom soo sañoon fi nga toog sa réew mi fi ngay amee teraanga di fi liggéey. Mhm. di gis sa njaboot. di mhm. gis sa waajur lu xew si bànneex ak naqari nga mën ko bokk ak ñoom. mais nga dem bitim réew ñu ne diw gaañu na sa ginnaaw mënoo ñëw diw judd na si mhm. nangam am na si ginnaaw dara dara gënu kaa moo tax kon moodu moodu yi kan man samay waay lañ. moo tax di am yéene jëflante ñoom si jëflante bu gën a rafet. kon képp koo xam ne yaa ngi si bërëb. nekk foofu noonu bitim réew di liggéeyu dëkk boo mënta nekk su dee da fa nekk am jafe-jafe këyit ah, tibbal ci suufu dëkk ba mu ngi mel nga ne yow Sénégal nga nekk yaa ngi cees bëgg am suuf Thiès Thiès dama suufu Thiès ba foofu noonu nga tibb ci nga def ko ci enveloppe wala ci mbuus ma jox ko GP mu ko su ko indee dinaa liggéey loo xam ne dama la koy delloowaat mu ànd ak mu war a ànd ak soo koy sangoo di am këyit su dee tamit da ngaa nekk si dëkk boobu noonu am këyit ba pare may liggéey daf la fa jafe ndax léegi-léegi nga gis ni koo xam ne mu ngi si dëkk ba am këyit mais mënta am contrat foofu noonu wala mënuñ kaa embauché place bi nga xam ne bëgg nga fa liggéey société ba fexeel ba am si tuuti si suuf société ba wala lu jógee si suuf société ba nga tibb si suuf sa tamit nga ko nga indi ko soo loo xam ne joxaat joxaat la ko dellawaatal la ko GP accompagner ko bagage bi mu a ànd nga dem mhm. nga nga utiliser ko soo ko utiliser di am kayit macha allah léegi-léegi ni Modou Modou woo la sax nga ne ko sax xaajo faju na du ma la dara sax du ko gëm xam nga bi ñu commencé maa ngi koy wax maanaam mbaqamu kun fayakun maa ngi koy wax man ma xam kun fa yëkkoon si dama si dama si laa toog fu mu ne nii. Hmm. ma hmm. xam kun fa yëkkoon. xam si liggéey yëpp si wàllum ñaan. benn secret la ñuy wër mi ma xam kun fa yëkkoon maanaam am secret secret kun fa yëkkoon. Hmm. soo si yaasin si mujjantal aaya wax innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun kon kun moom mooy li nga xam ne. nit day ñëw léegi wax ak yow nga ne ko demal sa xaaja faju nit mën naa ñëw fii xool ma am jafe-jafe. mën na ko demal ñibbi du ma la jox këyit du ma la jox téere du la jox jaaro du la jox dara nga. daal nga téye fi ne nii. léegi nag xam nga su ma demee ñenn ñi su ma leen joxee këyit sax maanaam pour dalal seen xel la xam nga léegi nag nit ki dafa bëgg di gis. Mm-hmm, mm-hmm. dara dara pour maanaam dalal xelam. Mm-hmm. su ko nit defee dama koy comprendre am na ku ko gën a def ku ko def ku leen gën a formé ñooñu yàlla Ibrahima ñooñu yàlla Ibrahima wax na yàlla na ko damaa bëgg nga wax ma na la ñuy dekkalee nit ku dee. alxuraan ne ko yàlla ne ko awlum tuminu mu ne ko balaa waaye nag li yet may na xal bi maanaam dama bëgg sama xol dal maa gëm naa ne mën ngaa dékkal nit ku dee de mais damaa bëgg nga wan ma loo xam ne preuve boo xam ne man day dalal sama xel kon nit ki des fois su ñëwee nga yëkkati këyit mhm. jox ko ne ko demal nga sax na ko xaaja faju na joxel defal nangam ak nangam suy dem xaajam di faju kon li nga xam ne moom mooy wàllum këyit ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di fa liggéey bëgg am kayit di dàqante policiers yi foofu wala ñàkk am liggéey ngir ñàkk am kayit lu ma la wax ni def ko rek utal suuf yi nga nekk nga yónnee ko ma defalal lu si suuf si jël bagage yi ànd ak kii bi jox la nga jëfandikoo. jërëjëf soo ko jëfandikoo di am kayit. mu ngoog euh, am na solo yi a ko doon réclamer te ko indiwaat nañ leen ko mu di Cheikh Baye macha allah loolu lañ leen amaloon waaye fi may jeexale ci actualité ci mbiram politique lay doon. Hmm. Euh, nga ne lan nga gis ci élection législative yi mu di élection député mois de juillet bi nga ne moom lañ leen ci xaar. élection yi de lu ma si mën a wax daal mooy nañ ñëpp tegu si njub rek jéem a defar Sénégal ndax xëccoo bi bëri na tamante dëmm gi bëri na tamal lu ma jaaxal réew su ko nit ñëpp bokkee su dee defar rek moo leen tax a jug hmm. pourquoi Macky Sall warta mën a woo Sonko ñu liggéey ñoom ñaar pourquoi Sonko warta mën a nangu dem liggéey ak Macky yaa ngi fàttaliku jamono coronavirus bi bu mu amee hmm. Macky Sall dafa waxoon ne ñëpp nañ ànd nekk di benn hmm. oo Idriss Seck oo Ousmane Sonko oo parti opposant bi yëpp kenn ku nekk ñëw dugg palais nuyonteeg moom saafanteeg moom ñu nuyu la. n'est-ce pas loolu bi day demoon ba jaaxle. xam na ñun foog na bi dafay tukki. ñun ñëpp accepté dem nangu nekk ak Macky Sall. si boole li ñuy wax la force la ñuy wax. lan moo tax léegi ñun ñi nga xam ne ñoom ay maanaam ay part si opposant bi lañ kii lañ nekk opposant bi lañ nekk. chaque jour ñu bugg a xas Macky Sall naka yow maanaam sa système bii nga nekk baaxut. te ñoom xam nañ système bu baax mënuñoo ñëw ne ko nañ toog ñu waxtaan Macky Sall moom tamit moom mi nga xam ne moom moo ilif li xam ne mooy réew mi. réew moom tamit mu nangu leen a recevoir accepté leen ñooñu ñu jox seen xalaat ñu liggéeyal mais su dee loolu amul rek kon am na ku bëgg wuruj nit ñi. te képp koo xam ne nag mi ngi nekk di wax naan Macky li mu fi def deful nag nañu waxante dëgg nag apprenti bu lang si kaar bi xelam bi yëpp toog si ba fu chauffeur ba nekk di dawal foofu mooy xelam bi mhm. kon ñi nga xam ne ñu ngi nekk di wax Macky lu mu def nii baaxul wala li mu deful nii baaxul bëgg toog toog lañ lañ bëgg kon léegi ñoom su dee am nañ xam-xam nañ ñëw di joxe dépense wala am ñaari soxna di joxe dépense mhm. am ay njaboot mhm. di joxe dix mille francs chaque jour dépense soo joxee dix mille ah. dépense ba jël 3000 francs def ko dépense bi 7000 francs yi mu denc ko. Mm, kon nag Macky nag mënta jiite réew. am ay gouverneur am ay ministre ah yaa ngi dégg am ay député am ay nangam ak naan kenn ku nekk mu jox la fenn mu mënta nekk fépp. Macky mënta nekk fépp dafay dafa lay taaj fii nii taaj kii taaj kii soo taajee Ziguinchor nga liggéey kii mu taaj Kaolack mu liggéey kee nekk Kaolack liggéey kee nekk Fatick liggéey moom du nekk mu liggéey kon réew mi dina naataange. nit ñi dina am jàmm nga faral. non du Macky la man aw kenn ku ma faral wax li nga xam ne moom mooy rek gis nga nguur dafa garaaw déw maa ngi wax sama benn waaye mën na ko nguur dafa nekk li nga xam ne maanaam yàlla dafa dagg lenn si cëram jox ko ko léegi nag soo bëggee xëccoog moom nag da ngay da ngay da ngay da ngay sensé boobu kulli laaw maalikal mulk tuuti mulku man tasaa wa tanzil mulk su dee yow nguur gi yàlla moo ko jox ni ko parce que président nag nekkul n'importe qui yeggee de président ku ko nekk rek. Ah, ah, sama borom la ko fal de kon yow léegi su dee da ngaa ànd ak ngeen liggéey ànd la moom si wàllum rafetal mais jarul nekk ci internet lu nekk nga xas nga wax man nag nekk ma di faral kii damay wax li nga xam moom moom mhm. nga xam ne moom moo jiite réew mi may ko wér ñi xam ne ànd nañoo ak moom te mu tëddee ñaaxaanaay waaw mu tëddee ñaaxaanaay nga xam ne Macky Sall ñu ànd moom nag ñoo koy yàqal Macky xam nga la war a def gouvernement bi lépp mu raxas leen bañ seet wecc loolu nga gis su leen raxasee mm. dem mu wala mu xool ñi nga xam ne maanaam ay maanaam ay ay prof université lañ wala ay ñu am xam-xam lañ mu jëlee indi leen si gouvernement bi wala ci nit kër diine yi am na ñoo xam ne defar réew moo leen tax a jug mu jël leen jox leen ay poste jox leen ay privilège ñu liggéeyal dëkk bi mais jël nit koo xam ne weer bu dee mu fayee ko deux millions wala trois millions di woo def oto boo xam ne cinquante millions lay jar yow looy yëg si réew métit gu si nekk Macky jox na la lépp yow nag yaa war nit ñi moo doxal kon élection yi di ñëw ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu si yegg ak ñu ñu ñu ñu ñëpp dugg si ki nga war a watal nga watal ko mhm. ku gañe ñu xam ne gañe nga ku gañe nga dem toog xam ne yàlla noonu la ko gërëmee def réew mi amiin réew mi jàll euh, agression yi bëri na ñu ngi wax Macky Sall na gën a yokk ah, sécurité bi mhm. na gën a yokk sécurité bi si dëkk bi jamono couvre feu yaakaar naa population Sénégal yegg nañ 16 millions personnes wala 17 millions personnes waaye ñoom jëloon nañ seen métukaay ba nga xam ne génne woon nañ homme de tenue ci biti homme de tenue yaakaar naa lu ñu génne woon lu ñu bëri bëri matuñ 1 million personnes te noot nañ 17 millions personnes yi ba fooy dem di takk masque soo duggee sa oto doo siy chargé doo def lu la neex si mbedd bi. nagam loolu jëloon nañ mesure boobu noonu ngir toppatoo nit ñi ba feebar bu mu bu nekk di wu law pour pour lor kon doom maanaam nañ nañ loolu nañ ko indiwaat loolu war na mën a nekk si koñ bu nekk am hmm. ay policiers yu fa posté campé fa nekk fa su ko defee nit ñi dina mën a dem liggéey am jàmm am salaam te kenn du sonal sa sa morom ci lenn ñu ngi wax yàlla na yàlla def jàmm si réew mi in uridu ilal islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh